mais mesures yooyu ñëpp ñoo mun a jouer relais bi diggante population yi ak euh, éveil conscience yi mooy yan moo tax ñëwul di rafetlu seen liggéey bi di rafetlu loolu def pour réew mi seen patriotisme seen bëgg réew il était important ñu naay ba ma indi leen président de la république nuy gouvernement bi ak gërëm gouvernement ak réew parce que loolu moo si des te wane ngeen tam seen taxawaay si loolu loolu moo tax ma egg fii pour remercier les nañu voir a nekk en alerte toujours alerte bi de fort contenu surtout surtout une guissée car communautaire yi yokk di yokk qui fait un peu peur de l'eau dara rek moo ko mën def mooy respect consignes de l'eau loolu yan lañ si wóolu si relais encore une fois malin ngi leen di nuyu bu baax a baax maa di remercier bu baax a baax te tam yan ñu nekkal te moo tax foog naa très prochainement seen dinaa def ay discussion parallèle ak seen encadrement bi ak seen direction bi pour xool naka la ñu mën a améliorer ndax tam di suñu taxawee tam fu ñuy liggéey tam si période de crise da xool ba aide loolu mën a spécifique pour lu ñu mu indaale en tout cas loolu sama département bi on est ouvert à ça maa ngi leen di si loolu nekk waaw euh, Dakaractu moom foog naa koy suivre rek li nga xam ne moom mooy am depuis euh, le 2 mars euh, bi nga xam ni virus bi ñëw na fii ci Sénégal boo seedee di nga gis ni bokk na xëy na tey ci organe yi nga xam ne ñoo gën a sóobu ci xeex bi ndax chaque jour bés bu ne dinañu def li nga xam ni moom mooy benn plateau spécial boo xam ni dañ ko jagleel loolu rek dinañu joxe déjà information wala xibaar yi nga xam ne mu nga tukkee fële ci. ministère de la santé te day wax lii nga xam ne moom la Sénégal di am ci ay cas par jour mais suñu ci noppee it dañuy def li nga xam ni mooy dañuy amal ay waxtaan yenn saa ñu woo ay nit ñu nga xam ni seen xam-xam màcc na jëm ci wàllum santé waaw mébét yi moom xëy na euh, am na ci loo xam ni wàll ñi ñiy décider la ñi nga xam ni ñoom ñooy jiite kër gi mais aussi ñun suñu wàll li ñu li ñu itteel peut-être mooy gën ñu permettre rek euh, ñu mën a def suñu liggéey t mooy Euh, gën a yaatal mbir mi gën fexe ba daal lépp nga xam mën bëgg nañ ko def en tant que ay journaliste ay reporter duñ ci am benn coono euh, te foog naa loolu moom la reporter yëpp euh, soxla xëy na nag junj moom doy na borom xel nekkuñu jamono joo xam ne dañu war a xëy peut-être toog di di ñax toog parce que aussi tey Sénégal foog naa ni ku ñaxtu rek am na koo xam ni moo la gën a sonn toog waxul kon yow foog naa boo nekk ci benn position bi defal li la war rek li ci des nag xëy na bu ñu jógee ci jamono yi peut-être yàlla def euh, li gën. xëy na du bis bu nekk ngay nekk ci waar wi di am koo xam ni ndawal buur la ñëw fekk la ci ne la jaajëf euh, waaye loolu su amee it euh, dañ koy rafetlu rek parce que aussi waaw góor baax na ci ci ci liggéey daal.